mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci bi ak réew mi FM daleen ak jàmm ci seen émission démb ak tey ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi euh, tey nag ni ngeen ko déggee ci bande annonce bi dañuy waxtaanee parti Pastef les Patriotes ak njiitam Ousmane Sonko euh, fi ñu jaar ba yegg si fii li ko waral xam ngeen que euh, barki démb ba tey nekkati na ci kanam actualité ndax li ñu ko tegaat loxo lu ko jiitu xam ngeen ne Sénégal dundoon ay événement yu baree bari yu tiis parfois yoo xam ni loolaa ko waral am ñu jàpp ne état ba Ousmane Sonko sóoboo ci wàll politique ba tey may ko jàmm day wéy di ko fitnaal daan dellusiwaat ci xew-xew yooyu yépp am mbégte dalal coordonnateur Pastef Ziguinchor Abdou Sané bokk kon ci le parti ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm pour la première fois ci émission démb ak tey waaye yow doo gan ci réew mi FM Abdou saane bismillah effectivement ni nga ko waxee noonu la réew mi FM suma kër la par conséquent maa ngi profito pour nuyoo auditeurs yi ak auditrices yi te comme ci nouvel an musulman lañ jógee tam ma profité ci occasion bi pour souhaiter bonne et heureuse année 1445 à l'ensemble des population nga gane si Dakar euh, jàdd réew mi FM ngir ñu waxtaanee tey euh, seen parti bi PASTEF mais aussi Ousmane Sonko ak seen jaar-jaar euh, surtout fi ñu toll tey waaye bala ñuy ñëw ci tey ñu dem tuuti démb ndax démb ak tey la ñu wax mun nga dellusiwaat rapidement ci parti PASTEF ba ñu koy sos taxawaay bi fi mu jaar ba yegg si fii tey. voilà dafa nekk loo xam ne lu bett la ñëpp parce que ki ko créer muy Ousmane Sonko teelul woone nit ku niroo comme kuy tabax parti première révélation am ba mu commencé di fës mooy ba mu defee son syndicat ba pare moroomam mi wóolu ko ba mu doon seen responsable moral ci syndicat de cadres impôts mooy ñi di liggéey ci impôt et nekkin ba mu nekk foofu façon ba mu doon gérer orthodoxie probité morale et probité intellectuelle rigueur ak sens du management ba mu wone foofu moo dem ba gars yi gis ni kii luñ ko dënk nii te mu am ni résultat war na mën a dépasser syndicat bi pour un destin national groupe boobu def créer syndicat boobu groupe moo toog réfléchir pour xalaat tëgg loo xam ne moo tudd tey Pastef te bi ko gars yi créé ñeneen mënoon nañ ko gérer mais ñoom ñëpp à l'unanimité ñoom ñoo ne yow la ñuy joxoon parce que yaa ñu doy nangul nga doon sunu premier responsable comme Sénégal dafa bëroon ay parti booy juddoo fekk déjà am na trois cent partie c'est pas évident nga mun a émerger nga mun a fës rupture ak style bu Pastef yor mu nekk syndicat boo xam ne lépp loo xam ne compromission la génne na ko lépp loo xam ne corruption la génne na ko lépp loo xam ne surenchère chantage pression weddi na ko rapidement Pastef commencé di am personnalité am di am originalité am ba mu commencé émerger sur les centaines de partis yoo xam ne fekk na déjà ñooñu judd nañu ëpp ko moyen et cetera mais comme ni ko tubaab di waxee osant bien ne la valeur n'attend point le nombre des années donc Pastef entre période de naissance jotul sa raam directement mu commencé di dox. daa jóg rek dox. jóg rek dox ci doxin boobu mu ñu am leader boo xam ne contrairement aux autres leaders nga xam ne ñoom sacrifice buy am xeex buy am dañuy naan ñoom en tant que leader war nañ ci bokk base bi na xeex loolu moo indi moom mu nekk au premier plan des luttes les plus nobles ci lutte yooyu noonu la demee ba mu exposé wu parce que après tout au cadre la woon de l' administration mu nekkoon un inspecteur principal des impôts et domaines mu dem ba finalement gars yi jiiñ ko comme quoi moom xamul lu ñuy wax droit de réserve parce que dañ ko accusé ay révélation yoo xam ne dafa profité ci position pour def ko or si on se rappelle bien période boobu lu mu doon révélé nekkul position moo ko ko may yow miitee boo ko bëggoon xam nga xam ko parce que ci site bi la ko jëlee ci site bi la nekk ñi doon wéet yëpp bu ñu duggee ci site bi gis nañu effectivement amul leneen lu mu joxee loo xam ne bokkul ak lu site bi joxee donc c'est une information publique alors noonu la premier ministre à l'époque kii Mohamed John nekkoon premier ministre tenir benn déclaration de presse alors ministre des finances du baax nga xam ne moom tam inspecteur impôt et domaine la te mu amoon relation personnelle ak Ousmane moom it moo de ko ministère des finance gars yi def pression ci moom pour que contrairement au aux lois et règlements en mu seet nan lay jaayee doole pour pouvoir se débarrasser de Ousmane Sonko ba loolu moo indi ñu rajjee ko ñoom bu koy rajee lu ñu doon séntu mooy toroxal ko mais bu fekkente da nga nag ci tànku dëgg yàlla du la seetaan loolu moo indi mu mel ni radiation boobu moo ko gën a jikk rapidement bi ko gouvernement bi ne ñun dañu la renvoyé peuple bi ne ñun yow la ñuy fal nga nekk suñu député donc jóge na ci inspecteur pour devenir député mu nekk député boo xam ne mi ngi jàll grace au plus fort reste c'est-à-dire que lu mu amoon ci voix dafa néew ba nga xam ne deset bi moo tax mu nekk député moom kese mais bu mu duggee ci assemblée le monde d'aujourd'hui nekkul un monde des effectifs un monde quantitatif c'est un monde qui a ses exigences c'est un loolu moo indi ñoom ak seen nombre bi yëpp moom mu nekk foofu singleton mais bu waxee mu mel ni deux cent Ousmane Sonko ñoo nekk ci biir assemblée dem na ba mu noyé assemblée ba finalement assemblée mi ngi doon dox au ritme et à la cadence des pulsions de Ousmane Sonko. te loolu mu gënoon am maana mu amaat ko beneen xeex ci biir assemblée façon xeex bu nekk galgal bu nekk lépp la ñu doon def di koy lyncher pour que mu mun a décourager gedd assemblée pour ñoom ñu mun a wet def lu leen neex. mu taxaw opinion bi nga xam ne moom mooy yore la souveraineté moom mooy la l'avenir des uns et des autres. moo ko jox une très bonne note pour gis ni pour la première fois am nañu député boo xam ne bat na député parce que def na loo xam ne kenn mësu ko def Ousmane a été le premier à montrer que député yi nga xam ne ñoo gën a fayeeku ci salaire yu baax ndekete seen impôt sax fay ñu ko te ñu gënoon pauvre ñoo doon fay impôt yu métti mu am courage joxe bulletin salaire am ba ñëpp teg ki bët gars yi commencé di koy mere donc lépp loo xam ne complot la gars doon def entre ñoom di déggoo pour faire ça contre le peuple Ousmane démarqué wu mu démystifier pour wane encore exemple moo wane ni politique warul nekk métier luñ ko doon fay yëpp mu ne soxla ci benn dërëm noonu la ko diviser en trois tranches mu am pouponnière bu mu doon jàppale ak ay femmes transformatrices yi mu doon jàppale ci ak xaalisam parce que pour boobu bu naree gagné saa vie day def comme tous les sénégalais dem ñafe ji ci tool yi dem ñafe ji ci liggéey mu joxe donc un très bon exemple ci loolu exemple boobu pour que peuple bi tam pour wane carrément ni sentir nañu que am na ku bees ku ñëw sentir nañu ni am na koo xam ne jar nañu am confiance ci moom peuple boobu jox ko rendez-vous deux mille dix-neuf ki nga xam ne fort reste moo ko dugaloon assemblée mu ñëw nekk troisième à l' élection présidentielle ba au dernière élection yi mujj mu ñëw nekk sax le premier de l'opposition alors que mi ngi fekk fi ay parti yoo xam ne depuis indépendance la ñu juddoo parti yoo xam ne ñoo ko ëppalee xaalis parti yoo xam ne tey mais tey Ousmane def na maillage ba nga xam ne boo nee diaspora moo ko contrôlé amul département boo xam ne mënoo classé Ousmane entre premier et deuxième place bu nekkulee premier deuxième la ñu ngi fi fekk yépp ñu ngi langu ci moom mu leen di xëcc te am na ñoo xam ne dañu demoon ba ñu sclérosé comme individu Ousmane moo leen réhabilité tëggaat leen ba ñu doon ay nit ay nit yu baax nit ñi mun leen xool. comme ñam déglu soxla ñu leen di tudd. Hmm. mais c'est des individus yoo xam ne ñoom dañu demoon ba périmé comme garab bu périmé hmm. sànni rek moo des mu ñëw réhabiliter leen ba joxal leen une nouvelle âme un nouveau souffle ba ñooñu doon tey ay nit mu xëcc leen comme wagon dugal leen encore assemblée espérer leen lu bëri donc foofu la ñu toll tey ak Ousmane mi nga xam ne. moom la Abdou moom la Macky di xeex moom la Macky Sall mënoon supporter mais Ousmane Sonko bi nga xam ne moom la peuple bi jël comme royukaay moom la peuple bi jël ba léegi dañ ko élevé au rang de Ousmane Sonko mu sell mi. ça devient autre chose Ousmane dépassé na conviction gars ñu ngi tollu ak moom ci foi te foi dafa nekk lu fort. parce que mu sell mi ça renvoie à la pureté à la propreté aussi bien au niveau esprit qu'au niveau du corps léegi Macky Sall lu ko gën a sonal ci Ousmane Sonko même ñeneen ñi yëpp luñ ko yëg iñaane mooy le fekk boo jëlee le passé des uns et des autres koo ci gis loo xam ne daf ci trempé en sang ou en malversation mais Ousmane Sonko la fekk que amul fu mu laalee loxo yi set moom la mu kaay mënul supporter moo tax chaque fois dañuy inventer ay complot pour wane nit ñu ni Ousmane du quelqu'un d'exceptionnel Ousmane comme ñun la mel ñun ñoo bokk ñu mel parce que c'est le complexe la moo indi ba finalement tous les jours il faut que ñu inventer loo xam ne pour wane simplement ni Ousmane Sonko mu sel mi doonu ko parce que il est comme tout le monde alors qu'en réalité Ousmane Sonko ça forcé quoi quinze ans dafa toog foo xam ne ñi fa toog yëpp ils sont devenus des milliardaires moins de quinze ans sax moom mu jógee foofu un franc amu ko mu ne nañu façon enquête bu nekk pour xool fan lañ mën a jaar pour tilimal ko yàlla bi nga xam ne du seetaan mu wane carrément ni kii page blanche la yaram bi dafa set xol bi dafa set te rigueur la gëm il ne transige pas mm. donc foofu la lii mooy la personne Ousmane Sonko mm. loolu moo joxee tey la valeur l'image le rayonnement et l'envergure parti boo xam ne mooy Pastef parce que c'est par la tête qu'on apprécie la qualité de de de l'être vivant mm. c'est pas pour qu'on dit que le poisson pourrit par la tête alors quand la tête est très bien faite le reste du corps est très bien loolu mooy Pastef la chance de Pastef c'est d'avoir trouvé une forte tête un homme de qualité loolu moo joxe tey Pastef bu nekk aussi un parti de qualité. Hmm. jaar-jaaru Pastef ak Ousmane Sonko ci ndorteelam moom nga ñu tënkal noonu waaye dañuy dégg ñu bari ci seen ay militants di wax projet bi projet bi donc Pastef c'est aussi un projet Ousmane Sonko incarne un projet lan mooy projet wu Pastef bi ngeen doon togg ba ca ca ngeen ba ngeen dooree ca syndicat ba ba tey fi ngeen yegg si. bu fekkee da nga bëgg ñu dugg ci projet bi. carrément rapidement l'essentiel l'essentiel waaw non l'essentiel projet bi lan la Ousmane dafa wonkee pour rupture mais rupture koo ci gis day naan rupture rupture mais nekkul ci slogan ko moom lu ñu wax rupture mooy lan wax laa la sànq ni politique warul nekk métier xoolal Sénégal ñu ngi ñu ngi toll à plus de trois cents partis mais benn partie laa xam nekk leader taxul nga nekk le dépensier du parti tey waa Saint-Louis bu ñu naroon def meeting faa la ñu Ousmane ñoom ñoo xam lan moo leen jaral pour ñu mun a trouver les moyens ñu def seen parti en terme clair au plan mental changé nañu mentalité sénégalais pour won leen nii soo gisee bu njëkk bu gaay yi di détourné c' est parce que sooy politique souvent ñoom ñooy financé financé léegi ñoom bu ñu jëlee pouvoir premier réflexe mooy ñu rattrapé mel ni ku investir mais léegi bu fekkee man dama samp benn idée idée boo xam ne du man maa samp ñoo ko sampandoo mu ñor la mu ñor ma ana fooy taxaw di naan man ma dépense mel ni yow gisoo si sa bopp nit ñi ñoo gis seen bopp ci programme. ah loolooy particularité. loolu mooy d' loolu da ngeen ko waxante bi ngeen di taxawal. parti bi wax ni pro projet. Hmm. tuuru Ousmane du ci feeñ. mooy ay idées majeures. Hmm. innovantes yoo xam ne kenn ku nekk gis na boppam te kenn ku nekk. gëm na ni idées yooyu la ñu mën a def pour ñu mën a am développement. parmi ces idées comme damay def résumé la principale idée te une seule idée ñu avancé mooy les question de bonne gouvernance dëkk amul benn dëkk boo xam ne corruption bu amee di nga mën a avancé amul dëkk boo xam ne malversation ak détournement ak impunité bu amee di nga mën a doon amul dëkk boo xam ne mal gouvernance en termes de non application et non applicabilité des lois et réglement mi ngi am amul dëkk boo xam ne redevabilité ak réduction des comptes boo ko defulee di nga mën a avancer donc Ousmane a placé le tout au cœur de sa disposition léegi beneen élément bi boo régler la question de la gouvernance ci ngay am temps pour affirmer sa souveraineté te boo xoolee bu baax tous les états africains sortis de la colonisation sont encore aliénés parce que lan la fu ñu dem ñu ngi ñaan ñu ngi yelwaan di yelwaan kuy yelwaan mënul am autonomie or ñàkk bi bu ñuy am ni c'est relatif parce que dëkk bi dafa am ay ressources aussi bien minières énergétiques et naturelles yooyu la Ousmane ne dans un contexte de bonne gouvernance bu ñu valoriser lii yëpp yëpp yëpp am nañu loo xam ne moo ñuy permettre ñu affirmer suñu personnalité mm. mooy indi ñu gëm suñu bopp mooy indi dootu ñu nekk ñii di yelwaan pour développer mm. mais suñu ressources ñooy nekk au service du peuple et au service du développement endogène donc le reste maintenant ça coule de source kon loolu mooy projet bi ci tënk alors ñu ñëw ci li nga xam ne tey daanaka mooy actualité ay at a ngi nii li ngeen jàpp ne bundu xataal la bu ñuy teg Ousmane Sonko te jógewul ci kenn ku dul nguur gi fi nekk incarné par le président Macky Sall est-ce que mun nga dellu si ci kañ la yëf yi door dëgg bu weesoo euh, radiation bi. bunduxataal gi ngeen di wax kañ la tàmbali ak Pastef nu mu ko dundee événement bu ci nekk. ok mais man aussi est mun na la ñaan dara. waaw bëgg naa yow mii sax nga dugal ci sa loxo amul ñun dañu jàpp <laughs> war nga mun a bokk ak ñiy jàpp. Ah. parce que boo nee yéen a ngi jàpp day mel ni yow sa yoon newu ci bokku ci non non non. waaw ah, man dama bëgg a nekk observatrice. non observatrice loolu moo ma bàyyi la nga nga développé. déedéet ñëpp di doon ay am ñi nga xam ne ñooy nekk acteur développement. man dinaa àtte bu ma pare doo gan si sa. dinaa àtte bu ma pare ah, li xew ci réew mi ñun ñëpp la concerné. ñun tey def bu baaxulee di nga ko yëg. loolu moo tax ma ne bul génnee sa bopp ay yenn waxal ñun loolu du benn péché alors donc depuis que Ousmane yow am na loo xam ne moo am période coloniale ba indépendance moom la français di wax système lu ñu wax système neexul génne parce que aspect religieux am na ay intérêt yi ñu am yoo xam ne boo ko ci laal mu jóg journaliste c'est pourquoi on parle de nervi médiatique. ñoom it am nañu ay intérêt yu ñuy gérer yoo xam ne boo ne da ngay yëngal système bi menace la si seen intérêt. homme politique yi donc secteur ak catégorie socio-professionnelle yu nekk dañu am ay intérêt yoo xam ne boo da ngay secouer système boobu da ngay am ñëpp koo tutoie. Ah, parce que ci système bi la ñuy dund. système bi moo enfanté ay catégories yoo xam ne dem nañu ba ñu gis ni kii di ñëw ak wax bu muy wax. suñ ko seetaanee ba mu réaliser privilège yu ñu daan am impunité bu ñu doon profito ak richesse non justifiée yu ñu daan am loolu yépp lu ñuy perte léegi nekkatul combat Ousmane Sonko ak un parti au pouvoir mais Ousmane Sonko ak une composante d'une catégorie yoo xam ne dañu am ay privilèges waat ni seen intérêt yooyu mënuñu ko béy xam nga ni xeex bu métti commencé na Ousmane yorul xaalis ay idée la yor te idée moo gën a dëgër xaalis idée boo xam ne mi ngi sa bopp yomb na ngay xëcc nit kooku dafay am détermination daf ko jaral na nekk mais ki nga xam ne ci xaalis nga koy tenir jour bu mu am lay xaalis mu marqué le pas différence bi foofu la nekk conséquence vague bi topp Ousmane mu nekk une vague ravageuse lu gars yi d'accord rek à la minute dem na tey mi mi nii heure bi bu ñu noon Ousmane Sonko mi ngi réew mi di def interview kenn du xaj fii embouteillage am na am côté de popularité parce que kenn ku nag dem na ba gis boppam dem ba gis avenir bopp propre avenir am ci ci ci moom alors léegi loolu moo indi lynchage médiatique di ko ñàkk façon invention bu nekk ay nit di mbuboo tuuru journaliste pour profiter ci position boobu pour saaga ko pour bind ay livres yoo xam ne kenn du ko kenn leen lire mais l'essentiel nañu kii wala nga bind ay titres mu wóor la ni kenn lii mais comme revue de am na li li li sa organe bi mënul jalle revue de presse moo koy relais même bu dee titre kese la hmm. léegi loolu yëpp nekk na am da ngay def la une pour que nga bokk ci suñu ne la une des journaux ñu tudd la point autour ci dara donc ñooñu ngi ne am na ay nervis religieux yoo xam ne il faut tout pour mettre en mal Ousmane avec les gens dem na ba Macky Sall si boppam ak tout le système fabriquer ay comptes ci réseaux sociaux yoo xam ne c'est des comptes fictifs di saaga ay autorités religieuses pour mettre en mal les gens heureusement on a des autorités religieuses assez responsables yoo xam ne mun nañu ràññee dëgg bi ak affaire fumisterie bi fu mu nekk donc façon coup bu nekk gis na ko dem ba ci biir famille ba ñu dugg ci biir famille amul lu ñu waxul dem ba ñu taxé ko de salafiste amul lu ñu waxul taxé ko de rebelle MFDC amul lu ñu waxul ci moom lépp loo xam ne anatem la sànni nañu ko mais ñoom ñu remarqué ni nit la koo xam ne boo koy attaqué mu gën a am doole ci nga xalaat ni yaa ngi koy wàññi mu gën a am doole donc kooku neexul arrêté donc noonu la ñu dem ba finalement ay mécanismes réguliers et irréguliers façon bu nekk inventé nañu ko agression physique bu nekk def nañu ko pour dem tribunal ñu ne la ñun ñoo lay won tali bi ngay jël pour simplement parce que nangu loo ko def ñu toj sa vitre moom mooy le seul leader qui a vécu donc pour bañ a yëkkati xolu euh, kii bi auditeurs yi ak man mi je crois que on peut se limiter plus ou moins à ça pour wane carrément ni am na lu ñu wax toroxal nit moom la gars yi xalaat ni dañ koy def mais yàlla mi nga xam ne du seetaan l'arbitre moom moo ko protégé loolu nga wax léegi bala ñuy ñëw ci détails yi naka ngeen ko dundee yéen ak Ousmane Sonko naka la ko dundee non Ousmane Sonko force mooy lan dafa am lu tubaab di wax force morale c'est-à-dire que mentalement dafa nekk ku dëgër te lan mooy indi dëgër laay soo nekkee ci dëkk soo nekkee ci dëkk dangay ngay am naturellement fit boo nekkee si njut jaaj sa xel moo du dal ba di am doole donc dooleem bi ci jubante bi la nekk dépendre premièrement beneen élément bi dafa constant nekkul comme ñooñu nga xam ne tey bu ñu nee lii suba ñu wëlbati ko ne maa waxoon mais changé na boobu tam qualité la beneen élément bi il n'est pas complaisant dépassé na fu muy toog pour seet lan la mën a wax lu lu lay neex mais pas lu mu gëm buy wax ak yow ci courtoisie bu muy wax ak yow mais dina la wax lu mu gëm dina weddi lu mu gëm donc dafa nekk une personne boo xam ne nit ku simple la mais nit ku am ay principe mu am loo xam ne moo gën a fort que les principes pour jël en charge les principes mooy li ñuy wax les convictions boo nee nit ki conviction la alors c'est une personne boo xam ne prépare-toi nga xam ni façon nit yooyu compromission du ci dugg soo ne aussi da nga koy tiital intimidation tu perds temps temps surenchère mais ne li ngay waxale kiyel ma li ma laacel li tu perds ton temps nature Ousmane Sonko mi ngi nii hmm. donc foofu la tollu tey et parti tam hmm. noonu la parti bi di demee loolu moo indi sax parti bi am benn stabilité nous sommes le yoo xam ne ay ŋaayoo yeneen façon xëccoo yi doo ko mën a dëgg même suñu investir pour député fexe nañ ba ñu investir surtout parce que lan la Pastef c' est pas parce que yow yaay responsable Dakar ngay nekk député appel à candidature la ñu def ku nekk indi son profil ñu choisir alors que yeneen parti yi enjeu yi c' est quoi c' parce que comme ñoom pour ñoom métier ça s' appelle politique damay politique pour am lii mais parce que da ngay politique pour un idéal et pour un destin commun national. ñu ñëw ci première affaire bi affaire Adji Sarr 2020 la éclaté naka ngeen déggee xew-xew boobu ak bi mun a teel seen kaw lan moo nekkoon seen réaction bu njëkk. non suñu réaction mooy comme d'habitude sérénité ñun nekkuñu ñoo xam ne dëgg affaire rek tëb tëb tëb loolu loolu. quel que soit affaire bi ak loo calculer calculer ak loo xalaat xalaat. soo ma nee nii ak nii dangay gis nii damay tey et la sérénité il faut être grand homme ou grande femme pour mu nekk ci sa deret donc sérénité mm. yow ñu gis ni accusation ñëw na alors que ñun ci accusation rek la ñu dëkkoon moom la ñuy dund kon bettu leen ci ay complot non bés bu nekk mu am complot pareegul sax complot ba léegi mënul jeex mm. heure bu nekk du la da ngay complot vient de naître yow nga xalaat ni dinañu ñëw ba di naan encore ñun ñooy sa téléphone ci koo xam ne liggéey na quinze ans ci impôt bref donc pour dire que complot yi la donc boobu tam aspect ci complot la donc complot bi dafa ñëw ñu tuuma ñu ci loo xam ne defuñu ko jegewuñu ko ñëpp ko yëngandoo et comme nañ koy waxee lu dul dëgg du yàgg au chaud chaud on nous en voulait mais tey tey tey la lumière a éclairé et je crois que kenn waratul sax poser question bi parce que foo ñu dem ba ñu vider question boobu. ba ñëpp disqualifié. loo xam ne moom la ñu tuumaloon pendant trois ans ñu ñëw ne loolu amul franchement nekkul saabu mooy faute ko mais ñeneen ñoo ñu raxas ba ñu set wecc. et on vient de se rendre compte que pendant trois ans toroxal ñu ay doomu jàmbur ci fenn ak ci complot. mais complot boobu dafay changer kanam dafay changer visage te dafay changer trajectoire mais destination terminale bi mooy atteindre Ousmane ko ñu ngi ci nii ba ba dinañ ci ñëw mais trois ans yi nga xam ne dossier Adji Sarr moom la def Euh, quand même euh, am na lu mu def ci parti bi donte am na lu mu def ci Sénégal au plan national parce que événement yu métti xew na fi mars 2021 juin 2023 xew-xew yu tiis mais parti bi itam est-ce que yëf yi fragilisé wu ko tuuti ndax ñu baree bari teg nañ leen ci loxo euh, Ousmane Sonko ñu tënk ko tëj ko ci këram blocus bi barki démb lañ ko yëkkati lan la leen événement boobu def. non événement boobu tant que jugé wu daf ñu doon encombré. mais bi jugement bi ñëwee ñi nga xam ne dañu doon xaar procès pour set ban bët la ñu war a mën a am ci ñun ñoo ñëw sol ay lunettes yu set mais tey laa leen gën a setal ñu réhabilité ñu moralement maintenant comme ni ko waxee ci complot bi gars dañu xalaat ni bu ñu arrêté yeneen tet yi yeneen bopp yi ah, mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu patron yi ci direction bi ñu ngi doon calculer ni certainement parti bi day dee or ma ne la c'est un parti qui a des racines très profondes parce que c'est le pôle souverain moo jël approprié wu projet bi tey direction bi yëpp la gars yi décapité ba Ousmane si Sonko parti baa ngi dund ban parti nga fi mun a am wax ma Sénégal mais au monde boo xam ne le premier le deuxième le troisième bu le soixantième ñoom ñëpp ñu ngi prison ba pare parti bi di gën a dox tey la parti bi di gën a dox parce que la parti bi kenn mënatul wax fii la commencé fii la jeexee lépp parti la foo tourné parti la bi ma doon ñëw indi ma sama oto taxi laa jël taxi man boobu nekk moom ma gën a fanatique mais comme xam moom mu bëgg a tourné autour du du pot mais bi ma décliner un peu nii rek ñëw na ba fi di may laaj sama numéro téléphone ba di may laaj seen fréquence bëgg bëgg ma gëmloo sànni daf may delloo sama passe donc pour dire encore une fois Sénégalais yi ils avaient soif mm-hmm. d'une personne de qualité ils avaient soif d'un parti sincère ils avaient soif d'une rupture ñu ñoo gis ni du chaque jour ngay am yeneen chance yi yàlla may nañu xewal xewal boobu lañu ne bii duñu rëcc comme qui dirait c'est la dernière chance loolu moo indi Ousmane Sonko mu sell mi bi ma commencé politique ba léegi avant mooy juddu lire naa à travers l'histoire mais ma gis un homme politique bu ñu ne homme politique mu sell mi c'est la première fois dénomination boobu mooy am maa ngi koy soog a dëgg tey hmm. Ousmane Sonko mu sell mi amul benn leader depuis que le monde est monde nga xam ne dafay dugg politique te nit ñi am fii une vision négative des hommes politiques ba ñu qualifier un leader politique de sell mi Ousmane rek moo ko am hmm. c'est révélateur c'est révélateur encore une fois du succès retentissant du projet de l'homme et de la qualité et de sa façon de faire. tout ne peut pas rose est-ce que amul dara loo xam ne dossier Adji Sarr bi am na lu yàqal Pastef wala Ousmane Sonko amul le revers de la médaille. non yàqal yàqal dans quel sens yàqal bi mooy lan complot rek. c'est-à-dire que boo nekkee dans la vie nga nekk nit ku baax mais c'est pas plein que les abeilles ne piquent boo nekkee koo xam ne compté loo amoo benn considération amoo benn valeur kenn loo sonal mais lu ñu lu ñu doon moo am doole mais lu ñuy menacer aussi moo ëpp ak ko doole man la tout un système est ébranlé secteurs yi yëpp dañu déggoo ak ñoom ne bu ñu jógulee ñii fu ñu jëm ñun ñooy nekk la principal cible la principale perdante les pour loolu yëpp bañu am ñu am coalition visible et invisible nga xam ne kenn ku nekk moo xam fu muy jaar pour pouvoir nous atteindre amul fenn fu ñu leen atteindre boobu ba tey dañuy dóor ba defe ne dañu atteindre ñun bu ñu dóoree nga rendre compte carrément ki ñoom ñoo daanu loolu moo am mënoo man mën ma laa tere nga dóor ma mais le problème mooy lan yow na nga natt bu baax boo fayoo nu muy mel nu muy mel loolu nga war a xam man toog naa nii nga ñëw bett ma giflé foofu mënu ma ci dara mais léegi dafa fekk nga mesurer léegi su fekkee réplique am na nan lay mel ci yow c'est nañ caa dégg première vague bi ak deuxième vague bi première vague lu ñuy wax premiere vague ak deuxième vague du affaire Pastef affaire sénégalais la bu Pastef tollul noonu Pastef parti parti la comme tout parti mais population yi ñoo gis seen bopp ba nga xam ne du Pastef mooy naan defal li nga def kenn ku nekk mooy jóg woon carrément ni damay taxaw parce que bii projet dam ci fiir ba nga xam ne képp ku ko menacé defante rek moo ci des loolu mooy chance su peuple sénégalais ubbi nañu seen i bët xool nañu interroger nañu le passé du Sénégal ñoo gis carrément ni fu ñu jógee dafa métti trop ñu gis carrément ni ay carrières ont été brisées ñu gis carrément que ay kër tas nañu fii am na pauvreté artificielle bu gars yi créé pour pouvoir mieux dominer les personnes alors que ñii lu ñuy def noonu yëpp c'est pour restaurer l'espoir c'est pour restaurer sunu personnalité c'est pour permettre à chacun de pouvoir être fier de ce qu'il est en tant que homo sénégalensis mm. donc foofu ñu tollu tey loolu mooy doole kii bi donc lu ñu mën a wax euh, tâche mooy comme am nay nit ñu ñu téye am nay nit ñu ñu dóor am nay nit ñu faatu am na blessé yooyu effectivement c'est là mais pour la mémoire de l'histoire ñooñu ce sont des héros et c'est pas pour rien que Pastef le militant s'appelle par camarade mais patriote hmm. te boo fekkee da nga nekk un patriote sa warugal mooy d'abord donner tout d'abord à la patrie en attendant de voir ce que la patrie pourrait te donner mais yow sa bos ci ci ngay commencé donc loolu moo indi les énormes sacrifices yoo xam ne ça commence d'abord par le sommet Ousmane Sonko ma ngi la doon wax perte na fi emploi Ousmane Sonko mi ngi nii une fois arrêté nañu Ousmane Sonko mi ngi nii accablé nañu ko lu nekk Ousmane Sonko mi ngi nii ay doomam sax persécuté nañ leen ba pour def seen examen problème la Ousmane Sonko mi ngi nii fan ñoom toog nañu fii pendant deux mois am ñu droit jën am ñu droit recevoir l'homme le plus persécuté en tant que leader su nekkoon comme ancien système yi compromission la ñu def ci suuf au détriment du peuple dëggoo am lu muy am ba pare ñoom ñu noos mais Ousmane résiste kon yooyu jot naa am jéem nañu ko kii non mun mënuñu ko parce que boo xamee façon nit kii nu mu mel da leer carrément ni boo ko defee def lay humilier doo ko essayé doo ko essayé bi ma naan ndax yàqalu leen dara maa ngi xalaat ñenn tam ci askan wi ñoo xam ne peut-être assez signifiant ñu ne Euh, Pastef daal ñemewuñ leen ñemewuñu Ousmane Sonko ndax xew-xew yi dafa wane ne ñoom ay nitu fitna lañ fitna ci seeni wax fitna ci seeni jëf est-ce que loolu du gàkk-gàkk bu nekk ci yéen mënul doon gàkk-gàkk à en réalité système moo am doole c'est-à-dire dañu tàmm fii boo jógee jóg jóg jóg jóg à ce moment là même nga xam ne ñoo neewoon sax wax nga dëggoon te ñu ne non au nom de la paix de la stabilité cest à esprit naa fekk dafa am esprit naafeq fu mu am du mus a accepter la victoire de la sincérité. parce que am na ñoo xam ne ci nafet la ñuy dundee ma jox la benn exemple day gis en privé ay nit ay responsable yu mag ne lu ñuy teg Ousmane c'est pas normal mais su wax jotee. ñu ne non ñoom paix au nom de la paix c'est pas normal mais franchement na même bu dee kii nañu def tout mais ñoom jàmm lañu bëgg jàmm lañu bëgg. or le mot jàmm commence par D. comme droiture. Mm-hmm. mooy. jub mooy dëgg. wax dëgg c'est dëgg dafa am un prix à su fekkente ne man sama lëpp ci dëgg laa ko bëgg togg bu dee yow ci jub nga nekk. mënuñu def dinañu dem ba tollu foo xam ne di nga ne man nitu fitna laa mais bi temps bi ngay wax noonu man fitna laa wax lan laa def soo waxee li ma def waxal est-ce dëgg la walla du dëgg. kan moo am intérêt bañ a nag ci dëgg di jaay fitna ko foo koo gis ñu naan fit nitu fitna la boo mënee enquête da gis ni en réalité courage bu mu am ténacité bu mu am ak dëgg bu mu am te intransigeance bu mu am ci dëggam moom la nit ñi amul habitude yi gis pour nit ñi dëgg ba boo ko yoree da ngay yëngal yëngal yëngal pour que gars yi bay la ci xel buñ la bayee xel si suuf ñu may la xaalis moo xam ñu may la poste moo xam ñu may la kër ñu may la kii nga noppiwaat boo demee dem ba mar ba xiif nga yëngalaat noonu la société bi doon doxee kii nag mu woon la carrément ni su ma nee oui oui su ma nee non non mais sama diggante ak le peuple souverain dafay fonnew sur le sérieux sur la confiance réciproque et sur un contrat de confiance absolue loolu moo indi bés bu nekk mu gën a fort yëpp ñi nga xam ne nit ku jub lañu doon wër gis nañ ko léegi conséquence le secret de Ousmane Sonko est là encore une fois je dis mooy le seul homme politique au monde nga xam ne dañu naan Ousmane Sonko mu qualifié ko de nit wala mu sell mi moom rek moo ko am. d'accord ginnaaw dossier Adji Sarr dossier Mame Mbaye Niang itam ñëw na tegu nekkaat beneen problème aussi bien pour Pastef que pour son leader Ousmane Sonko naka ngeen dundee mbir moom nga xam ne mi ngi ci nekk 6 mois sursis lu ko mën a gàllankoor ci élection présidentielle bi donte euh, décision bi suspendre na ndax appel dafa am. lan moo indi dossier Mame Mbaye Niang c'est la gestion du tey sujet boobu jugaat na comme actualité parce que xale yi di jël gaal ci biir projet boobu xam lan la projet bi wax théoriquement ci composé ci ci ci ci dañu nekk projet boobu à terme war na mën a créer trois cent mille emplois heure bi nii ñu ngi si six mille emplois war nañ ko évaluer lan moo doxul fi nga xam ne trois cent mille emplois la ñu waroon am ñu toll à six mille a écart boobu même pas cent mille déjà boo amoon cent mille mooy un tiers mais ngi six problème am na te xaalis amul or le budget avait été conçu pour un objectif. xaalis ba jeex na objectif bi jotuñu ci. xaalis bi bu jeexoon sax mu kii mais bu fekkee xaalis bi dafa jeex ba ñu endetté mooy bu bon bi doublement perte c'est-à-dire que jotoo objet te yaa ngi ak ay bor mooy comme yow tey par exemple joto sa salaire. mais yaa ngi ak ay bor c'est-à-dire que salaire bi bu ñëwee moom moo salaire bi bor yi ngay fee nga nekkat encore dans le besoin yu mel noonu la donc 6 000 mu suñu def évaluation ba communiquer ci loolu. mu am de rapport internes yoo xam ne inspection ministère des finances moo ko def à l'époque ba mu indi histoire entre l'actuel ministre de la jeunesse l'actuel premier ministre ak moom Mame Mbaye Niang alors comme ñoom c'est un problème de complot toujours nan la ñu mën a def pour que Ousmane mu bañ a bokk ci lépp loo xam ne moo mën a perdre le pouvoir mooy élection gars yi jaar ci benn wax bu ñu wax moom la Ousmane wax pour ne am na lu mu wax loo xam ne lapsus la peut-être ci ñoom donc war a ko wax bi gaay demee juge bi pour wan leen ni loolu ça ne rien mu def une première condamnation condamnation boobu teral Ousmane Sonko mu dem élection jour boobu ñoom ñëpp dañu doon céppi cëppi foofu di tiir di daan am nañu la ñu bëgg parce que ñoom l'essentiel nañu leen seetaan deux jours après procureur ci boppam moo dugg ci loo xam ne moom moo ne c'est une affaire privée opposant deux citoyens moom moo def encore appel au niveau de magistrats dafa am ay yoo xam ne gëmuñu yàlla ragal ñu yàlla aspiré ñu am gloire ñoom l'essentiel nañu avancé am ñu gàccee seen i doom di leen di xoolee comme papa boo xam ne amul mu mérité lu dul FOD muy fragiliser honneur famille bi yëpp ñooñu ñu nangu la commande politique qui a été formulée par Macky donc amuloon procès amul verdict commande la yow boo defee commande yaa ngi nii fii nga ne sa benn agent wutal ma deux kilos dibi damay liggéey guddi doo fay c'est tout commande politique li ñu def ne la fexeel Sonko boobu nekk candidat léegi pour ñu fay la dañ lay may promotion. nga avancer nga avancé est-ce loolu sa avancement la parce que nit da ngay avancer dans la dignité nit gor affaire valeurs yooyu c'est important valeurs yooyu ça fait partie du programme yoo xam ne moom la Ousmane bëgg a def nii mais boo demee ba nga ne yow gëmoo dara kiwloo dara si say kanam doom say jabar say kanam collègue ñu naan post bi da ko am bu dee jigéen ñi la ñu ne la promotion canapé nga ne ça ne te pas bu dee góor la ñu ne la aussi tu es procédé par une autre façon de se faire corrompre donc commande bi mais problème bi mooy. est-ce que noonu noonu la Macky Sall defee la commande. mu am ko ko livré après mu fay ko. mais il a prêté le flanc peut ndax moom tam la mu wax firndeelu ko indiwul ay preuves. lu mu wax dans la vie am na lu ñuy wax essentiel. am na lu ñuy wax accessoire lii de c'est quoi malversation moo am léegi ma wax ni kii la par un lapsus kii la mais yooyu c'est minime donc l'essentiel c'est quoi trajectoire bu fond bi jël débat de fond bi foofu la nekk et il problème. foofu lañ waroon seet. voilà donc xew-xew boobu naka ngeen ko gérer waa PASTEF. non ñun du ñu mm. on a fait face. on a résisté. on a résisté constitutionnellement boobu mooy suñu secret. Tekki boo ñu jam dañu am une immunité naturelle dañuy résister c'est tout. d'accord bi mujjee mooy jàppam gi àjjuma euh, ñu ne dafa sàcc téléphone gendarme bu jigéen bu ko doon filmer mu ne ko na ubbi téléphone bi génnee image yi kooka bañ mu euh, après la ca topp yépp xam nañ ko naka ngeen jàngatee li xew barki dem xam nga loolu sax dafay reetaan loo yow sàcc loo lu dul ay téléphone Ousmane tollu na tey fu muy ñàkk ba di sàcc téléphone loolu dafa am solo et ça révèle benn affaire ñi ko accuser loolu ñoo am ay carence ñoo am ay lacune war nañu tey auditer yeneen nit yi par rapport seen CV am na ay façon nit dañu occuper ay fonctions mais war nañu créer ay commission pour ñu mun a def enquête pour seet est-ce ñoom seen parcours boobu yëpp yëpp yëpp lu ñu wax ci diplôme dañu ko am daan les conditions yu sell wala leneen parce que am na nit fu muy toll yeneen façon waxin fu ko waxee dangay ngay tiit da ngay interroger pour laaj sa bopp kii fan la jóge fan nan la fexe ba nekk fi ba di wax ay insanité yu mel noonu ay incohérence yu mel noonu ay idiotie yu mel noonu ay sottise yu mel noonu. li ngay wax nii da nga cee gis procureur. tudduma kenn de façon affaire bi am nay façon wax comme ni ma ko waxee. su ko nit waxee da fay tuuti boppam yow tey am na nooy waxee di nga tuuti sa bopp te yéene ma la ko parce que nit kaddoo mooy permettre nga xam fan nga ko war a teg xam nga su ma la gisee nii nii loolu wolof naan ko wax feeñ la gisee nii nii nii mënu ma xam ban façon nit nga mais sa premier kaddu deuxième kaddu ba troisième kaddu rek dinaa commencé dina ah fii laa ko tegoon ndekki war naa ko yëkkati ndekki et cetera même chose donc lii franchement bi ma dégg bi ma déggee lii c'est autre chose mm. or ñoom bokkuñu wax dafa am ñoo xam ne mooy gendarmerie ñoom dañu ne kii dafa demoon pour def liggéeyam en tant que service renseignement pour le compte de la sûreté publique procureur ne auto moo paan fële bu dee auto bi moo paan cela veut dire que yow du question liggéey bi moo tax nga nekk foofu mais sa paanuwaay auto bi moo indi ba nga nekk foofu dans ce cas nekkoo en exercice de fonction koo ci filme koo ci enregistré lu mu la def yaa ko mérité Ousmane daf ko ne sax l'effacé man maa waroon nekk place Ousmane kon neneen laay fajee problème bi ba nga xam ne sax du ñu tal pour wax ay dama sax téléphone bi. Hmm. bokk ñu tempérament man loxo assis laa yor. Hmm. dam lay xool ni xaañ la c'est absolument rien pour man dafa am chance mu nekk Ousmane Sonko Ousmane Sonko bëri yërmande pardonné ko on changé Ousmane Sonko Abdou ne xam na beneen actualité. leneen la ñuy wax non beneen actualité ngeen di wax ay. kër kër gi yooyu du am parce que yëfu bandi ku ko jaay maa woon la ni maa la gën a bandi parce que bandi boobu en ce moment mm. dara xaraamu ci amul benn péché au contraire àjjana ngay dem parce que lan la yaa ngi faj koo xam ne dafa dëng nga koy faj ku réhabi ku faj nit ku dëng mm. barke rek nga ci mën a am donc lii c'est du théâtre mm. c'est du théâtre et les jours à venir affaire bi dina gën a leer alors euh, yaakaaroo leen di jur euh, leneen ndax ñu bari jàpp nañ ne ñu ngi doon xool naka lañuy def ba teg ko loxo lii occasion la Pastef tey naka ngeen di euh, xëy na séentoo tournure yi mën a ñëw. non teg loxo bi c'est pas la première fois Ousmane teg nañ ko fi loxo gendarmerie affaire Adji Sarr Ousmane Sonko teg nañ ko loxo parce que dañ ko séquestré këram pendant deux mois boobu mooy la peine la plus lourde mhm. Ousmane Sonko mi ngi nii. hier convoqué war nañu te du jeex tant que nekkul président mais heureusement bu bëree ba bëre muñ bi léegi mu jeex parce que dans six mois jàppal date bi le vingt cinq février deux mille vingt quatre date bu sacré la Ousmane Sonko mooy nekk le nouveau président pas pour se venger mais pour wane nit ñi ni la vie aujourd'hui boo bëggee doon un grand homme il faut accepter de traverser les épreuves boo leen nag un grand homme mënoo traverser les grandes épreuves et Ousmane donnera une leçon à l'humanité pour wane carrément ni on peut atteindre ses objectifs en gardant ses principes en refusant de se faire corrompre en refusant les compromissions dans l'honneur et la gloire et répondre ainsi aux aspirations les plus légitimes du brave peuple souverain nga xam ne bu mu nekkee fii ba léegi boobu rek moo ko jàppale gëmul leneen lu dul le seul peuple sénégal ci jaar-jaaru Ousmane Sonko euh, itam bokk na ci li ci gën a fës fal giñ ko fal bopp Ziguinchor mu nekk maire ba blocus bi nga tudd léegi naka ngeen ko dundee surtout yéen waa Ziguinchor yaay coordonnateur Pastef Ziguinchor nga nekk foofa naka ngeen ko dundee euh, ca Ziguinchor euh, en tant que ku ñu xañ maire am gisu ko mais aussi Ousmane Sonko loo ñu mën a wax ci nu dundee blocus boobu ci cité kër góor gi juróom fukki fan ak juróom. voilà ñun lu ñu dund moom la waa Matam dund. waa Tamba moom la ñu dund waa Dakar moom la ñu dund yow mi moom nga dund parce que nit ku baax kenn ku nekk daf koy bëgg a gis kenn ku nekk daf koy bëgg a dëgg kenn ku nekk dafay bëgg a seere loxoom. moom dafa mu dugal ma ci rek. alors léegi <laughs> ah parce que dama xam ne nit ku baax la amul ko ko bañ kenn ku nekk bu sañoon tey ñu naan la gis naa la ci wetu Ousmane Sonko donc ñun métit bu ñëpp métit lu boobu la ñu yegg mais du point de vue du travail Ousmane Sonko dafa nekk nit koo xam ne dafa développer une stratégie de travail en équipe. ba nga xam ne moom même bu dee moom mooy maire absence am amul benn influence ci mécanisme de fonctionnement normal loolu moo tax la mairie fonctionne cinq sur cinq mais d'un point de vue affectif dafa am loo xam ne moo ñu manqué de point de vue moral dafa am loo xam ne moo wàññeeku ci ñu le fekk ñuy liggéey fii ci tuuru nit koo xam ne moom ci boppam mun a too wax ak moom amoo possibilité pour waxtaan ak moom pour gis ko franchement loolu moo ñu métti yoon ci loo xam ne teguñu ko ci dégg lu dul provocation. Hmm. yéen a ngi doon déggante bi mu nekkee ci blocus bi. dëggante bi xanaa ay téléphones yooyu de temps en temps et cetera tout et tout mais ba léegi ki nga xam ne moo yore espoir waa Ziguinchor ba waa Ziguinchor teg ko comme maire booy respecté waa Ziguinchor am na lu la war donc warul nekk en situation de prisonnier hmm. ci loo xam ne. amul benn fondement juridique parce que lan la lu ñu doon def nii yépp c'est pas un acte juridique maa tey ak jaay doole lu ñu doon def c'est terminé hmm. donc loolu dafa nekk appréciation boo xam ne du waa Ziguinchor kese ñoo ko apprécier mais c'est le monde entier diaspora bi opinion internationale ñëpp toog ñëpp a ñaawlu ñëpp a regretter boo xam ne moom la ko teg hmm. bi ngeen di déggante jamono blocus bi moralement naka la Ousmane Sonko defoon bi yëpp mais yow tey su fekkee ne yow war naa la gis physique ba ma lay dégg moralement tout court au contraire ni ma gën a dégg may gën a sentir un vide autour de moi parce du baat bi rek laay dégg mais ma teg sama bët ci sa kaw bët ñu gisante joxante loxo xaxataay et cetera tout loolu moo ñu manqué quoi lu ko tee moom nu mu dundee blocus bi kooku moo ko mën a apprécier xamoo ci dara nan laa ci mën a xam mi ngi nii di génn blocus dugaat ci beneen blocus <laughs> dafa changé dañ ko transféré c'est-à-dire que le temps ñu fermé blocus bi ñu indiwaat beneen blocus bu bees c'est tout hmm. est-ce que leen fi mu moralement bien sûr mais moralement on est solide parce que teel nañu xam ni boo yoree loo xam ne c'est riche da ngay attirer tout en wolof je crois que vous dites bien que quand tu un animal hyène bi voilà hyène bu yore benn boot bukki xaj mbaw très bien le chien va aboyer même chose loolu moo am donc on s'est préparé à affronter lépp loo xam ne appareil d'état la xoolal gendarmerie police douanier armée politicien au pouvoir politicien corrompu société civile corrompue et cetera et cetera nervi de tous ordres ñu ñëpp conseil nañu benn mbootaay avec benn objectif mooy pexe wala fexe ba Ousmane Sonko bu mu museen doon président contre la volonté du peuple souverain. yaakaaroo leen dinañ ko réussir ndax ni yëf yi doxee nii est-ce que tam tey jii euh, candidature am xajamul lool lool te la candidature am gën a leer te ensuite dëkk bi kenn moomu ko ba di lay xaaj kii moom dëkk bi am na tour le peuple souverain. am na sainte volonté du peuple souverain prénom et nom ñoom ñoo ànd ñoom ñoo ne ñoom ñoo moom dëkk bi nga xam ne moo tudd Sénégal ñoom ñoo ne Ousmane Sonko moo ñu doy ñoom ñoo ne Ousmane Sonko rien que Ousmane Sonko amul keneen ñoom ñoo préciser que Ousmane Sonko 25 février 2024 caaxaan la soo xalaatee deuxième tour. Hmm. first round en anglais premier tour en français primer torno en espagnol. bokk gi leeragul ngay wax premier tour. lépp la Ousmane tey buñ ko tegee ci wàllu yoon il est inéligible. ndax condamnation be te gis nga assemblée nationale barki Dembo Ndiaye lañ fa wote mu jóge ci dialogue bi. ma ne lépp leer jàppal li ma la wax rek peuple souverain mooy prénom bi volonté peuple souverain mooy sant bi peuple boobu moom moom Sénégal peuple boobu moo ne vingt cinq février dina am loo xam ne moom la ñuy tudd élection présidentielle Ousmane Sonko day bokk te Ousmane Sonko first round en anglais premier tour en espagnol premier tour en français lay dóor avec la manière pour dugg palais mbalit bi am fi yépp mu génne ko suñu bopp sunu yaram ñu doon nag Sénégal bu jub jubante xol ñu dem ba ci kanam. tey bu loolu antoo ba nga tiim jaar-jaaru Ousmane Sonko ak jaar-jaaru Pastef lan nga ci tirer comme conclusion. li may tirer comme conclusion mooy ñëpp ubbi nañu seen bët du Abdou Sané moo ubbi bëtu kenn li nga xam ne moom la ñëpp gis ba mu jaral peuple sénégalais ak diaspora bi yëpp di waate ci turu Ousmane Sonko ba ñu tuddee ko Ousmane Sonko mu sell mi ci homme politique ak li gars yi ñàkk wóolu homme politique nga dem ba toll foofu ñu dem ba toll foo xam ne tey su Ousmane Sonko newoon pour campagne bi lii laa soxla ñu ne ko à la minute di nga ko am te amul kenn ko mun a am loolu yëpp loolu bu la doylee ci espoir bu la doylee ci argument gis man leneen looy am sunu adversaire yëpp xaalis li ñuy doxal pour mun a convoquer ay nit Ousmane Sonko tey bu newoon maa ngi dem stade amitié bëgg naa ngeen ñëw kenn fi nekk di koy wax jox ma paas jox ma t-shirt jox ma niroole toggal ma añ jël ma en charge ku kenn ku nekk mooy seet nu muy demee te ku yéex doo am benn place même ci biti donc foofu la ñu toll boo demee ba am lu mel noonu mel ni pauvre bu am or war nga xam noo koy protégé mu jaral la comme moom lu mu ko jaral nga weesu loolu nga war a taxawaay nga war a am taxawaay boo xam ne def la ko pour qui que ce soit sa bopp nga ko defal parce que yaa ngi koy def pour sa tey mais pour sa ëllëgu doom foofu la ñu toll donc Ousmane Sonko dafa nekk un grand espoir pour ñun pour suñu ay doom pour le Sénégal et pour l'Afrique lan la ñu war a gën a jàpp ci jaar-jaaram ci jaar-jaaram mooy qualité humaine yu mu wone en termes de droiture d'orthodoxie de probité morale et intellectuelle de rigueur dans la réflexion ba pare mu nangu liggéey liggéeykat la maire yi ay samedi dimanche day liggéey ba ay vingt trois heures ku tayal munoo ànd ak Ousmane ku ñàkk fit munoo ànd ak Ousmane de qualité la te mu nekk xale encore plein d'énergie donc mel noonu Sénégal am na lu mu war a tiitaroo à preuve tuuru Ousmane Sénégal traversé na Afrique Europe Amérique ñëpp ñu ngi koy teg bët boo nekkee à Ziguinchor nga koy xam gars di jël ay vols spéciaux pour simplement interviewer Ousmane Sonko à donc Ousmane n'est pas n'importe qui c'est par hasard encore une ma répété waat que ñu naan Sonko mu sell mi yaa ma gën a dëkk olof mais mu sell mi à part Ousmane Sonko gisuma keneen ko xam ne jox nañ ko tour boobu tout le monde est ordinaire y a que Ousmane Sonko qui est exceptionnel moo tax on parle de Ousmane Sonko mu sell mi lan moo la booleeg Ousmane Sonko. jikko ju baax yéene bu rafet taxawaay bu baax franchise honnêteté vertu et cetera et cetera. kañ nga tàmbalee ànd valeur yooyu ku ko am rek am nga ma daan l'ordre parce que man tam yooyu laa gëm je ne kañ ngeen tàmbalee ànd. les boo rendez-vous kenn retenir les dates. mais lu leen boole. <laughs> du est-ce que c'est parti. waaw moom laa la wax lu ñu boole c'est des idées la man Ousmane Sonko dama toog di ñun ñoo dëkk Ziguinchor mais am ñu affaire à Ziguinchor période boobu mais bi ko gars yi di rajjee ci période boobu xam nga léegi Google moom mën a seede nit mm. boo duggee Google lu ma def à une date mënuma antidater. j'ai été le premier des Sénégalais à prendre ma plume et à rajo parce que man bind dafa yomb ci man te dafa gaaw. mën ngaa ne fukki contribution ci benn bés. voilà loolu mën naa ko seede. donc sur le coup noonu laa bindee. léegi article boobu moo def le tour moo am ñu liir ba ne aussi Ousmane yow am na koo xam ne mi ngi lay defan est xam nga ko mais comme période boobu damay signé ba signalé sama numéro téléphone moo jaar ci numéro boobu woo ma pour xam fan laa dëkk ñëw sama kër fekk ma fa le contact établi mais papam ak sama pap ce sont les meilleurs amis les inséparables. Hmm. au niveau suñu ñaar famille ñu ñoo bokk même quartier à Ziguinchor suñu paa yi mais du point de vue âge mënul nekk sama àndandoo parce que bokkuñu groupe loolu moo indi man mënu moon am relation direct ak moom relation bi bi may am ak moom mooy bu muy dugg ci affaire syndicat mu am aussi benn projet bu rëy boo xam ne c'était le projet d'exploitation du zircon dans le Niafran mu nekk projet boo xam ne dama doon xeex contre projet boobu en terme de producteur ma bokk gis-gis ak moom ci la ma invité pour la première fois en public ñu def benn conférence de presse au pour que ñu mun a prononcé wu ci loolu parce que moom tam dafa ma doon jàppale. ci xeex bi ma amoon ci projet bi. donc le coup d'envoi est parti et depuis lors les affaires sont devenues huilées ba mu wóolu ma nommé ma coordonnateur j'ai pas été élu dañ ma nommé coordonnateur PASTEF donc je tire ma légitimité de sa confiance. de sa confiance maire Ziguinchor du ma adjoint au maire je suis conseiller délégué auprès de Ousmane Sonko donc moo ma nommé. jox ma un continue en termes d'urbanisme en termes d'environnement en termes d'état civil ak suivi des projets donc voilà. lan nga dund ak moom comme anecdote lu la marqué lool lool lool. lépp mu marqué conséquence dafay jafe ci man pour ma jël benn élément bay yeneen. mais may ñu ci benn rek comme dafa bëri may ñu ci benn wala ñaar. c'est un homme complet. boo nekkee ak moom sax da ngay am pression parce que da ngay ragal faute bi jóge sa côté. loolu moo gën a métti foo toog yaa ngi seet nan ngay def pour décevoir ko parce que il faut mériter confiance am hmm. bi. Ousmane il est inquiet bu lay wóolu daf lay wóolu. Hmm. donc nit ku mel noonu boo nekkee ak moom doo mën a nelaw bés bu nekk yaa ngi toog ngay naan est-ce que def nii. Hmm. doy na est-ce a lu reetaan lu par exemple. le bien-être mooy lii. le fait de voir que ñun ñu ngi commencé di rendre heureux les populations de Ziguinchor. boobu sax nu doon ñun ñëpp kenn ku nekk mu sourire. yow anecdote yi nga gëm noonu ah. a xëcc noonu. Ah. a am. jëlal la question globale. jëlal ngeen liggéey lu exceptionnel yéen ñaar nga xool ko ne. Ah, sama waaj ma ne mm. confiance dafa nekk richesse. nga toog nii nit wóolu la nome la une fois mu jox la parti ñu fal ko mu nommé la moom moo xam si lan la sukkandiku pour ñu lay yow sax yow da ngay constaté ñu ngi leen nommé mais ba léegi mënoo wax kii ban bët la la xoolee. parce que li ngay foog loolu la du loolu moom am na leen. moom moo mu gis ci yow c'est tout su ma gisee loolu saa part te mosuma toog ba mu naan ma tu m'as déçu boobu plaisir boobu mun ma ko am kii fenn te Ousmane Teye dafa nekk koo xam ne américain asiatique africain amul kenn ku buggul nekk à côté de Ousmane Sonko. donc privilège la que nga nekk ci moom. privilège bu gën a fort ba ñu naan Ousmane Sonko daf la wóolu ba di lay jox sa sa xam ci moom lu sénégalais yi xamul ci moom Ousmane Sonko loo xam ne tey waroon nañ ko découvrir peut-être. loolu moom dama koy garder pour man bu fekkente ne loolu am na su ma xamee loo xam ne kenn xamu ko. moom mooy nekk sama doole foofu laay amee avance par rapport aux autres. Ah, jour dañu jàpp ne nitu fitna la. waxam dafa dëgër gat sa gat sa résistance. Euh, xëy na yow xam nga beneen yëfu fitna yooyu yëpp effacé nañ ko fële. waxkat dëgg la dëgg bu muy wax mooy déranger point du benn fitna. il est véridique il est incorruptible. entre collègues nan lay doxalee ak waa mairie bu Ziguinchor. il est il est charmant. déggoo li ma la wax équipe de travail la ñu mel ba mu nekk équipe transformé en équipe de famille. pourtant am na ñuy grève ca ba mais lu ñuy wax grève ça n'a rien à voir avec les relations de travail. Hmm, ah amuñu problème ak moom non je veux dire que le mot grève yow nii dina am jour. bu fekkee sax mosuloo grève si sa entreprise dina am jour di nga nga ne tey ñu ñu ngi grève kan moo kan moo dul grève la grève fait partie de la vie. mais grève bu mairie boobu bokkul de grève bi c'était pas dirigé contre Ousmane ko grève yi c'était dirigé contre Macky parce que Macky Sall moo recevoir les travailleurs mu am lu mu leen prometté moom doonul maire léegi ci mise en œuvre bi Macky Sall rendre compte ni moom mënul régler lii mu bëgg renvoyer les travailleurs pour mettre leen en mal avec les maires kooku wax la xaw ma est-ce li moom bëgg a wax donc Ousmane jotewul dara avec les travailleurs travailleurs problème bu ñu am c'est le niveau national Macky moo leen ne dama leen di classé nii ak nii ci catégorie professionnelle or Macky du maire léegi ci mise en œuvre Macky s'est rendu compte lu mu leen promettre nii yëpp dépendre ñu seet est-ce que maire yi attan nañu jël loolu en charge et entre-temps dans beaucoup de mairies mais la grève est dirigée contre Macky Sall mais ne bu mu ñëwee ba léegi li politiciens di def ak seen i mbokk Ousmane n'a engagé personne il n'a changé aucun lu mu fa fekk moo fa nekk nii ba léegi parce que dafa considéré ni ñoom ñëpp ay frère am lañu ay sœuram lañu. ay mbokkam lañu. tant que ñu ngi ci liggéey ñu def lu ñu war a def ci liggéey gisul lan moo mun a indi change léegi bu fekkee ne leneen nga ci dugal lu bokkul ci liggéey. la en ce moment lu la ci fekk tu as mais c' est un homme inclusif integre ouvert généreux très courtois. kooku mooy Ousmane Sonko moom la ñu doon waxtaanee. ci émission démb ak tey mooy Ousmane Sonko mu sell mi mais il faut préciser ça. Sonko mu sell da nga bëgg a wàññi. non non dama xam ne yow moom da nga du yooyu. Hmm. noonu laa ko déggee gars yi di waxee Ousmane Sonko mu sell mi te ñi koy wax am na ñoo xam ne ñoo ma gën a mag ñoo ma gën a kilifte ci côté diine ñoom ñooy naan Ousmane Sonko mu sell mi il faut moom lañu doon waxtaanee tey ak parti Pastef seen jaar-jaar ba ñu dooree ak euh, tey ñu nekk ci ay jafe-jafe jafe-jafe yoo xam ne daanaka mooy actualité fan yépp euh, ma lay gërëm personnellement ci disponibilité bi Abdou Sané fàttaliku ma fu ma la woowee nga ni ma aw ma jot wala damaa jàpp wala ba beneen bés wax nga ma lu ma marqué nga ni ma boo ma fekkoon may julli damay arrêté julli bi wuy la loolu nekk lu fort ci man maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi euh, di rafetlu aussi waxtaan week leeral yi nga xam ne indi Gañuka ma lay gërëm muy yow muy borom kër gi muy ñi nga xam ne mooy seen collègues yi muy techniciens yi journalistes yi ba ci agent sécurité nga xam ne ñoom bu ñu fi nekkulee du ngeen am sécurité ba seen xel di daal ba di liggéey ñeen nag une grande famille autour de réew mi réew mi mooy dëkk bi mooy lu ñu bokk ñun ñëpp mu nekk lu sacré réew moom laa bëgg mu nekk réew buy réussir réew boo xam ne euh, économie prospérité jàmm en pagaille mais yow personnellement que may souhaité yàlla gën a yëkkati bu ci fu gën a kawe. voilà parce que gis naa en euh, toi des qualités et des talents d'un ci grand leader de la presse. Abdou Sané coordonnateur Pastef Ziguinchor la ñu doon dalal ci démb ak tey amoon mbégte lool euh, gis ko aussi pour la première fois ndax euh, ñu ngi doog a tegante bët gërëm Diawo Diallo mi ne woon ci jàppandal gi émission bi mun ngeen ko teewluwaat ci suñu chaîne Rewmi TV officielle di leen dig daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen ñu yendoog jàmm